di wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant borom bi subhanahu wa di jaajëfal cheikhuna alxadim radiallahu anhu di ñaan sunu borom fayal nu ko kem kàttanu sunu borom na nam toll yàlla na ko fayal cheikhuna alxadim di jaajëfal cheikh mahamadul muntaqa di ñaan sunu borom fayal na ko ci liggéey bii mu yëkkatil sëriñ bi te boole ci muy liggéey boo xam ne bu sunu borom nangu la ba noppi kon nag bu ko yëkkatee boole nu ci nun amuñu amuñu fayam lu weesu sant ko te ñaanal ko te gërëm ko di nuyu nag ci turam mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi kenn ku nekk ci turam ak santam mën naa koo jaarale ci Serigne Mor Faye mi nga xam ne tey moo jiite jataay bi ndax mooy coordonné université bi waaye mu tegal ñu ko ci mboolem ñi nga xam ne ñooy gan ñi fi ñëw professeur sëriñ musa Badiane di ki nga xam ne moom itam moo jiite tey di tax ñu daje fii ak docteur Makhoury Dia waaye di dalal di sant professeur Ka nga xam ne moom dama ne ko pulaar nga waroon a wax ndax ay séeréer a ngi fi waaye noonu nit pulaar yu gàlli lañ da ngaa waroon làkk rek lu ci waaye dégg dégg ko ci di am mbégte mu rëy rëy di sant itam ki nga xam ne moo jiite hôpitalu Njaareem te ñëw ànd ak ñun waaye di sant sëriñ Maam Balla Mbuub docteur Maam Balla Mbuub di koo xam ne sunu wëllëre la di jàmbaar di ko xam ci liggéey bi di sant docteur Sorang moom itam xam nañ ne dafa génn waaye ci liggéey bi la bokk teew na fi ak mboolem rek ñi nga xam ne ñoo fi teew waaye di ci jiital nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey liggéey bi muy ko mu jàmmaa Cheikh Ahmadul Khadim mën naa cee tàmbali Serigne Fallou Mbacke bi nga xam ne moo jiite daare alxuraan ji nga xam ne mooy xolub liggéey bi mm-hmm. mooy mooy mooy bopp bi mooy tànk yi mooy alali Serigne Touba mooy ñi nga xam ne ci lañuy tàmbalee meññat mi maanaam tàmbalee ci suuf njabat bi muy màgg jëm kaw doon loo xam ne alhamdulilah ni nga ko waxee sëriñ bi ñëwoon na fi ubbi ko bi mu ko ubbee nag ci la ubbi waale woon mboolem lii nuy def tey ndax ba mu nee baasin miim ñëpp wax booba la joxe ndigal booba la ubbi daari majlis ji ci la ubbi kulli darasatil islamiyya bi ci la ubbi lii tax ñu tase fi tey mu doon liggéey bu am solo naka noonu ci lay nuyu Serigne Bakk Abdourahmane mi nga xam ne moo jiite majlis bi nga xam ne moom itam xam-xamu diine bii nuy jariñoo di jaamu yàlla di xam ni ñu jëfandikoo diine njàng moom yi moo ko fi indi mboolem jàngukaay yu mag yi ñu dégg ci àddina bi itam njàngu majlis moom yi lañu woon kon moom itam lu am solo la ci liggéey bi waaye njàng mu kawe mi muy kulliyat dirasatil islamiyya bi UFR étude islamique docteur Abdoul Ahad Lo mi nga xam ne moo ko jiite mu doon loo xam ne mënta ñàkk fi mu ne nii ñu wax tey ci danaa ci ñëw ci ñiy jàng mbirum kër docteur waaye ñii jàng njàng mu kaw yi war nañoo sant yàlla bu njëkk nit ki bu jàngee ci majalis bii ma doon wax ba am fu mu àgg ci xam-xam bëgg yokk xam-xamam xelam rek ci génn lay ne waaye génn jafe woon nag jafe woon lool xanaa léegi la nga mën a am bag daal nga mën a am bac Sénégal boo xam ne état reconnaître na ko waaye man fee duggee université di jàng-jàng mu kawe li may wax defe naa bari na ñu nekk salle bi ñu ko xam bu njëkk muxaamara lañ ko daan tudd muxaamara nag mooy aventurier ki bëggoon a jàng bitim réew bu ñu ko doon wax ci langue waxinu jamono ji damay bañ nag soo soññewuma ci loolu waaye li ñuy wax barça wala barsaq ni ñu koy waxee di dem di sàkku ji taraanga noonu lañ ko daan defee di sàkku ji xam-xam te booba la gënoon a jafe waaye baax ak njàmbaaru taalibe Serigne Touba yi ñun mësuñoo xalaat bourse ku mas a bëgg a jàng da ngay génn rek di jàllantu foo romb rek fekk fa njabootu Sëriñ Tuubaa ñu teral la jàppale la dimbale la nga dem jàng kon tey jàng yomb na léegi nag fii ci réew mi ngay jànge ba am foo toll am fi bac dugg université bu mel nii docteur Ka wax na ko léegi professeur Ka condition yi ñuy jàng fii doon ci biti de te foofu ay réew yu mag ñoo def université kon fii condition yi ñuy jàng fii ñi fi nekk war nañ koo xam ñi fi nekk war nañ koo xam bu baax a baax a baax a baax kon maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi tàmbalee ko nag ci professeur Maguette Guèye moom itam bu ñu toogee ci UFR santé wala ci institut supérieur des sciences et métiers de la santé war nañ ko delloo njukkal ndax bi Cheikh Mouhamadul Mountakha wootee liggéeyam bi ñëpp ñëw ku nekk na nga mane ñëw ci lañ tëral programme pédagogique bi professeur Mor ñoom professeur Lamine Guèye ñu di ko sant moom itam ci li mbokk mbooloo lañ ay mi téeméeri nit lañ mëne su leen a lim waaye ñooñu ñu ci ràññiku lañ moom mu waxtaan ak sëñ Ishaq moom itam ñu du ko ñaanal tey bu fi nekkoon mooy ñëw ubbil na jotaay bii mm. mu ne ko man kat damaa amoon projet bu def benn institut supérieur buy jàngale wàllu médecine defoon naa étude ba noppi dama koy joxe yi loolu nag kon moom itam tàmbali la ak yéene ju rëy mm. ci lañ ko tege nag professeur Badiane ñoom ñëw àndu ko ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram ci réew mi laay wax waaye rawatina Touba gii mm. docteur Sol ak ñoom ñoom docteur Mame ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu àndandoo liggéey ba waajalaat ko nag ba mu dëppoo ak Touba ndax ku ne xam ne ne dëkkub Touba bii dëkkub sëriñ bi la li taxoon boroom sos ko nag mooy defar nit ki rek mu texe àdduna texe àllaaxira loolee nag ci yoon wii moo nekk nii kon ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh mun Mountakha di leen sant di leen gërëm xam nañ ne fi mu nekk nii dafa nekk ci xalwatu waaye liggéeyam bi moom amul waxtu nee na amul waxtu amul bis waxtu wu ne lu ci nekk bala ñoo def dara dañ ko koy yëgal bu nu bàyyi ko fii itam dem leeral ko li nga xam ne moo fi nekk lépp ci jotaay moo koy toppal boppam ndax benn yitte bii la am waaye alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah ñëpp wuy si nañ ko kon tey bu ñu tàmbalee jàngum alquran mi tàmbali njàngum majalis mi wala majlis mi tàmbali kulier dirasatil islamiyé bi UFR étude islamique tey nuy tàmbali institut supérieur des sciences et métiers de la santé kon alhamdulilah ndax yooyu mënta mënta mënuñoo taxali ko te sëriñ bi xam bu am njëriñ la wax wàllu wér yaram nag dara jiituwu ko ci doomu ndax dañuy wax naan al aqlu salim fil jismi salim maanaam nit ki balaa mën a ànd xelam mën a def la war a def muy mën a jàng mën a jaamu yàlla mën a liggéey dafa am wér-gu-yaram am na nag ñu koy walbati léeg sa xaw ma dañuy jum xaw ma naan al jismu salim fil aqli salim <laughs> waaye jàpp naa ne bu njëkk bi moo gën a wér faw moom bala ngaa mën a xam bala ngaa mën a am xam bala ngaa mën a am dara sag yaram dafa wér ndax yaram ci biir yaram ci la xel ne bu nit ki wéradee du tal dara jamono yi fi jàll itam jàngal nu ne wér gi yaram lu jar a bàyyi gën a bàyyi xel la naka jekk dafa amoon solo moo war a jiitu waaye nag dañ ko war a gën a bàyyi xel njàng mi ñu ko fi jàngalee nag ak fii ngeen tàmbalee itam dëkk bi da ko soxla ndax macha allah gis naa ne soxna yi laa seen ñoo gën a bari ci ci ci ci ci institut bi bu mu tee nag na góor ñi itam ñëw nag ndax xam-xam moom moom moom ñëpp a ko war a jàng waaye alhamdulilah li dal na xel ndax seen soxna yi bu ñu tolloo fenn seen seen seen seen mbo seen seen mbokkum soxna ñëw di leen taxaw loola loola lu lu am solo la rawatina nag ci dëkk bi tubaab bii donte nag médecine moom amut moom moom moom góor mën naa sa mën naa mën naa fa jigéen bu baax a baax a baax foqaaw yaa ngi fi xam naa ne dañu ko gën a leeral waaye nag bu ko moroom jigéen manee nag moom da caa dàqati da caa dàqati te ku ne xam na ne sëriñ bi moom lu ne la ca gën la am lu ne la gën la am ku koy defal nag kon la gën ngay def di ko waaj te xam ne loo yëkkati rek moo la koy gàttandul ku nekk ci liggéeyal sëriñ Tuubaa mbaar la mu lay tiim rek di la keral di la di la di la di la seral di la sagal ngay dox defe nga defe ne doon nga ci dara waaye lépp sëriñ bi koy defal bopp loolu defe naa barab bii ñu toog doy ci firnde ak jamono yi ñu ko liggéey ak ni ñu ko liggéeyee ci loo xam ne matul am na sax ñuy wax juróom fukki weer waaye manqué na ko ba sëriñ bi joxee ndigal ak léegi mooy tollu ci juróom fukki weer waaye bi liggéey bi tàmbalee manqué na ñetti at te murid yaa ko def murid yaa ko def te xoolal nag ñaari at yi ci digg bi nga xam ne ci la jamono ji tolloon ci àdduna bi ni ma ko doon waxee booba ñëpp jaaxle lépp tëju kenn ku nekk jàpp ne nag ay koppar moom ba ko amee naa xalaat leneen murid sëñ Tuubaa yi nag jaayante jaaju defal ci sëriñ bi lu toll nii ci defin wii bu ma nee defin wi nag ñu ko doon tëral boroom xam-xam yi laa ci jiital ndax dafay liggéey boo xam ne dañ ko laltaaye xam-xam ba mu noppi ñu soog koo jëmmal ci këyit am na ku ma wax keroog neen li mu seetlu ci liggéey bi mooy bañ tàmbaleek léegi mës a gis benn birig buñ teg teggiwaat ko toj te loolu yomb na ci tabax lool wala ñu tabax ba noppi de dañ koy reconsidérer wala dañuy def avenant baat yooyu yéen a mu gën a xam miin nga amul fii lañ ko waajaloon sax dañoo jàpp ne xëy na mën na caa benn waaye li ko waral mooy programme pédagogique bi lañ tëral salle bi xam nañ ni war a toll ñaata nit dafa war a toog naka la war a taxawee naka la war a juboo ñu soog sëriñ bi jox ko jox ay architecte ñu jëmmal ko ci kayit mu jox entrepreneur yi ñu tabax fii nu toog nii ay jaayante la juróom ñaar ba juróom-ñetti bâtiment yi ngay gis yépp ay sas la mbooloo mu nekk ndakaaru ñoo wax sëriñ bi ne ko kat nun dañu ànd yow ci liggéey bi lépp lu aju ci daara alxuraan ji moom nun noo la koy defal caabi lañu lay jox gis ngeen ko nii fi mu nekk nii lu mat juróom-ñetti téeméer di tànk ñu ngi fi di jàng alxuraan ñoo xam ne fii lañ dale baasin ñu bëgg ñu mokkale fi binde fii kaamil waaye jàng fi xam-xamu diine waaye jàng fi jàng mu kawe mi nag li sëriñ bi doon wax nag fii li ñu ubbi tey dañoo bëgg ñi fi génne yenn soxna yi ak ñi nga xam ne ñoo fiy jànge xëy na soxna du mën a doon ilimaan waaye mën naa xam diine ndax sallallahu alayhi dafa waxoon ne xudu nisfa diinakum sayyidat sunu maam wala sunu yaay sayyidatuna Aïcha sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne seen genn wàllum diine na ngeen dem mu jàngal leen ko kon jigéen daa war a xam diine soxna mm, jaariyat soxna jaaratullaahi Mariam waaye waajuram mu tell tedd wa maam astawaalo ab jàngalekat la woon bu mag a mag daara ju gën a mag ci jamono yi mënoon nañu wax ne moo ko yoroon kon da ngeen di jàng métier waaye da ngeen di jàng diine wax nañ ko léegi loolu waajal nañ ko ci programme bi ku fi tàmbalee jàng dañ la jàngal li nga xam ne mënta ñàkk ci jullit donte jàngoon nga ko mooy ibaadaat ci aqida la ñuy jiite mooy tawxid naka la nit ki di wéetale borom bi subhanahu wa taala waaye jàngal ko naka lay jaamoo borom bi subhanahu wa taala jàngal ko ihsaan mooy jaamu googu naka la naka la koy rafetale te sëriñ bi noonu la wax ne bu ñu jàng nañ jiital yooyu kal aqdi wal fiqhi wa ka tasawufi waaye lu mu ca teg wa kulli ilmin bi manaafi'a fi bépp xam-xam am njëriñ kon mooy wàllu médecine xam-xam bu am njëriñ la bu mënta ñàkk kon filière bu ci waaye man di nekk bu ci nit di jànge danañ la jàngalaat wala danañ la fàttaliwaat sa diine ni ko Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu jàngale te moom boobu mooy ba sallallahu alayhi wa sallam indi woon boo xam ne dara raxu ko kon ku fi jànge da nga ëppale ki nga xam ne feneen la jànge loolu waaye danañ makaarimal axlaaq nag bi nga xam ne moom rek moo fi indi woon sallallahu alayhi wa ma innama ba'istu li utammima makaarimal axlaaq loolu lépp a ngi ci lépp lu baax lépp lu rafet lépp luy defar àdduna di defar àllaaxira makaarimal axlaaq ëmb na ko te loolu itam dañ ko fi jàngwaale ay borom yi xam-xam a ngi fi yoo xam ne ci njàng mu yomb nag moo xam ne du leen sonal waxtaan lay doon ku ba am loo bëgg laaj nga laaj ko ku am loo xamutoon nga laaj ko ku am lu la réeroon wala lu loo xam ne daal jàppoon nga ne sax waroo koo xam lu mu man di doon laajal bu la neexee mën nga ko wax ci téléphone mën ngaa wéet ki nga xam ne borom xam-xamu diine la nga wax ko ko mu leeral la ko ci anam gu leer yow it nga mën ko leeralaat keneen te sallallahu alayhi wa nee na kersa amul ci diine nit ki lu mu war a xam ci diinam rek bu ko xamul na ko laaj bu fekkee mënu ko gëstu jub tere ba xamal ko boppam kon ñu ngi sant ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha di am mbégte waaye nag di sant sëñ professeur Masseck Fall ci lii mën a indil tudd naa léegi ñoon jafe-jafe yi ñu amoon ngir jàng waaye mboolem ñi nga xam ne ñoo bindu ci université bi te am ay bac yu yees def jox nañ leen bourse la in shakartum la azidannakum kon ñi ngi sant directeur de bourse waaye di sant ay kilifaam ndax loolu tam bu xamoon ne bu ko bu ko defee bu xamu bu xamoon ne neexu leen du ko def ni ma ko waxee war na leen waaye ku sant nga dolli ko te jàmbaar boo ko nee waaw góor day feddali ak laxasaayam kon nag nañ xam ne loolu moom tàmbali bu dal xel la ñi nga xam ne it dañoo amoon bourse dañoo amoon bac bu bachelier bac bu yàgg te bindu fii ñi ngi ci yoon wi di leen lijjantil nuñ mën a amee bourse nu jànge professeur Ka maa ngi lay sant bu baax sama mbokk Haalpulaar bi li nga wax ci équipement yi am fii lépp noonu lay demee Serigne Touba léppam tànneef la bu ngeen duggoon ca waañ wee ñuy waajale xewali gone yi moom am na ci ndaw ku ndaw yoo xam ne dañoo bëgg a dellu si waat jàng si te ab professionnel bu jógee Angleterre moo fi ñëw def ay menu ah noonu ba ni jàng de ah a wuteeg daara yi nag fii nag ñu fi ne moom sañu noo def lu dul excellence am am excellence quête d'excellence ndax sëriñ bi nee na lu lu baax lu ne la ca gën moom la sallallahu alayhi wa sallam daamal wara nay la fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qarraaw te sëriñ bi mooy doonal yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lu baax lu ne la ca gën fii la ne ci kër sëriñ Tuubaa muy ca njàng ma ca jikko ya ca yar ba ca liggéey ba waaye nag kuñ jàpp li nga soxla lépp nag danga daan kat man warumaa ñam ak yëpp warumaa ñam warumaa yam ak ñëpp danoo bëgg nag buñ doxee tuuti fii kiy jiite réewum senegal génn ci iniwersité bii man di jiite man di jiite ca jumaa ja di ji di di di di jiite réew mi waaye docteur professeur agrégé ne sama wet professeur sociologie moo ne sama wet ñi ñëpp ak ñi ma jàkkaarloo ñëpp di professeur seeni kem bari lool lool lool lool juriste yi jóge jóge fi mboolem daal lépp loo xam ne luy tax nit ki mën a dund fii ci àdduna ni ko sunu borom xaroo tàggatal ko lépp nga xam ne lépp lu mu bëgg jariñoo mën na koo jariñoo na mu gënee dañoo bëgg ña ci tànneef nag li nga xam ne ay sommité ñoo waajal liggéey bi ñi fiy génne nañ doon nañ doon ay sommité ci wàllu yoon te himma bu kawe moom la sëriñ bi moo tax sëriñ bi taxawal liggéeyam bi ba mu jógee daf ne bépp bépp daraja bu borom bi subhanahu wa taala di jox nit ci moom ba ca gën laa yelloo ba ca gën laa yelloo te it fu nit di àgg ci borom bi subhanahu wa taala danaa fa yegg alhamdulilahi rabbil alamin gis ngeen fi mu yegg nii kon loolu mooy soññe bi ci ñu yor liggéey bi waaye mooy soññe bi itam ci nga xam ne ñoo ñëw di fi jàng si yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na yàlla fayal na Cheikhul Khadim waaye yàlla na sunu borom fay taalibe Serigne Touba yi jëf ju toll nii ku ko jëf ci diggante bii ci waxtu wii ak ci jëfin wii loolu alhamdulilah ñu xam ne nag Serigne bi wax na ko liggéey bi de su ko tàmbali képp koo xam ne ñëwoon nga di jëf boo defoon benn fexeel ba mu doon ñaar boo ko mënee waaye nag Serigne bi tegul kenn lu mënul laajul kenn loo amul waaye daal denc bu dul yàqu la bàq bu tooy la lu ci waay ji dana sax dana jeb bi dana meññet dërëm ak ñaar dërëm yi ñu doon jox sëriñ bi it ku ñëw fii xam ne lépp fii la dugg si nga am ñaar dërëm joxe ko ka am junni ka am million ka am fukki junni borom bi subhaanahu wa taala boo koy lebal wala nga koy jëfal na nga toll ngay jëfe waaye bu lay fay na mu toll la lay fay ñu ngi sant bi gërëm